asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 30 décembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb la la tribune du yëglekaay bi di l'observateur wala Leewtoo TV wala sax fi nga xam ne moo di Leewtoo point net fu nekk tey ay xibaar xëy na fa bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom Lac dëgër Guiers numéro 2 ñu xëy wan mu ngay entraîné di yëngal loxo ya lag nag ka muy waxal du kenn ku dul Eumeu Sène ne na ko jàppal ne ak foo mën a aw ak foo mën a dem jàppal ne moom yoral nga ma bor loolu daal mooy waxi ki nga xam ne nii moo di Lac dëgër Guiers numéro 2 moom daal daa jàpp ne Eumeu moom mu gudd mu gàtt mu guddi wala mu teel mu naaj wala mu lu ci mën a xew daal yoral na ko bor boo xam ne moom jàpp na ne moom fay gi du mën a ñàkk wax ki nga xam ne moo di lag de Guiers numéro 2 la ba tey am na keneen koo xam ne moom mu ngay wax ca moom mel ni moom waxi ragal ko daal wala ay wax yu demee ni ki noonu lay wax ci moom muy ka nga xam ne moo di Tapha Tine mu takk ci rib ma ca leneen loo xam ne tamit wax na ci mu rib boo xam ne daa jàpp ne daal combat wala boog gis na ko muy diggante Sa ak ka nga xam ne moo di Yékini Senior ba tey lag mooy wax mu mel ni ki nag comme combat boobu mu wax ak Eumeu Sène moom jaamel ni yëglikaay bi di l'observateur daal la mu wax bu dee am na wala la muy wax ne mu ngay xeeñ muy diggante ki nga xam ne moo di Eumeu ak Bombardier daal moom la lob su wax ne moom mu ngay xeeñ mu ngay xeeñ xeeñ goo xam ne daal boo sàgganee ah des na ca jot de wala dina taxaw waaye am na combat boo xam ne moom taxaw na ba pare muy diggante Modou ak Ama balde yëglikaay bi tamit ñëw na laaj ci ay acteur maanaam ñoo xam ne boog ñu ngi yëngatu ci làmb ji la ñu xam ne daal combat bi moom le 26 juillet ci lay am ka ko wax moo di commandant Thioune daal ne na combat bi moom day am Max Mbargane moom mu nga xam le ne daal nee na jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko lig dañ dana maanaam daal lu yóbbu làmb maanaam lu koy wàññi la boog waala daal loo xam ne mën naa néewal doole làmb loolu mooy ay wax ki nga xam ne moo di Max Mbargane ci combat boobu ba tey Modou Lo moom ma war a bëre combat ba Leewtoo point net mu ngi ñuy xamal ne daal li leer ba leer soo bëggee dégg dëgg ci samedi jii nu génn waa konos daal recevoir nañ ko ngir lan nag di waajal JO ya nga xam ne mooy am 2022 fii nga xam ne mooy ci dëkk bii nu ne muy Sénégal Njaay mu mel ni kii daal kon Modou Diagne Ndiaye la séqaloon aw waxtaan wala mu dalal ko bërki démb Leewtoo point moo xëy di ñu xamal lu mel ni ki noonu waaye li leer ba leer daal fi nga xam ne tamit moo doon stadium Iba Mar Diop moom xatoon na ci weekend bii bu baax a baax a baax fañ koy njëkk mooy ca sam ja ak ka nga xam ne moo di Bamba fay bàmba moom Gorgui Étudiant la ñu indiloon ak booy Balde waaye góor ti jaa moom digganteem ak Boy Balde meloon na ni njarndeem xeex ba dóorante ba ba na ko góor Gorgui Étudiant daani jël bu rëy ba mu ko daan diggante junni nag ak ka nga xam ne moo di booy loo itam waxoon na xat mu mel ni ki foofa itam drapeau ba nag kañ ko tudde woon muy saaliw xulle moo tax drapeau ba daal foo ko takk ci ak metti yeggoon na fa ci ñaari mbëre xeex ba kanam ya toj fu nekk waaye di fa nàcce yëglikaay bi ñëw na ci fekk nañ tamit vidéo ba ca Leewtoo TV mu mel ni ki foofa moom la tribune moo xëy ñëw ca tudde combat boobu combat da la ne wala drapo da la ne muy drapeau saaliw xulle mu mel ni ki daal moom ka nga xam ne nag moo di booyloo moo mujj a gàddu drapo ba yóbbu ko ci kanam ki nga xam ne moo di junni mu mel ni ki kon bésu saaliw xulle boobu itam safoon na sap ca ñaari mbër ya nga xam ne ñoo ko doon bëre waaye leneen loo xam ne dañ cay ñëw ci démb ci dimanche ji la amoon ba tey ci stadium Iba Mar Diop mu mel ni tamit tey tàngaatoon na jër Assane Ndiaye nag moo fa jaarun dem stadium ba fees dell ak am mbooloo foo sànni mbàtti mu tàkk xale yay bëre jël yëre yi waaye la doy waar mooy diggante Tapha Mbeur ak ka nga xam ne moo di Alioune Seye Junior bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca too TV coow laa nga fa Alioune Seye Junior moom mook Tapha Mbeur combat bu méttee méttee métti songoo jaxasoo nit daw dugg ca géew ba ñu àtte lamb ji bërewaat waaye kii di Tapha Mbeur daal dafa dem benn moment boo xam ne Alioune Seye mel ni kuy xeex ak moom rek wàcc tibb tànk ba dal di koy dëj mu daanu ba jaaxaan yëglikaay bi di Leewtoo point net wala Leewtoo TV ñëw na ca sunu làmb itam ñëw na ci mu mel ni foofa dem moom Assane Ndiaye moo fa jaaroon muy combat boo xam ne daal loo ci mënta dégg moom Alioune sa Signor yóbbu na drapeau ña nga xam ne nii ñoom ñoo di waa Bawol TV Alioune Seye Signor moo ko yóbbu ca yëmbal Tapha Mbeur nag moom mu ngay contesté ndax daa jàpp ne daal action ba njëkk am moom kat appi ka nga xam ne nii moo di Alioune Seye Signor def na ko fa mu mel ni foofa moom coow la mu nga fa ne gadd waaye leneen loo xam ne tamit amoon na démb ñu cay ñëw rek nii moo di jag sa 10 millions ya daa mel ni nag faraa moom jóge ga mu jóge États-Unis daal ba mu ñëwee teg na tànkam fa nga xam ne moo di arène nationale nangu lañ fa tegoon moo tax yëglikaay bi jàpp ne day Franc moom ni mu ubbeeb saison neex na ñeenti million daal la bokku démb yóbbu ko fa nga xam ne moo de parcelle loolu daal la nu yëglikaay bi tamit xëy ñëw di ñu ko wax waaye leen loo xam ne tamit dañu koy wax muy loo xam ne nii daal jàppal yëglikaay bi tamit ñëw na ci muy ki nga xam ne nii moom moo di ah Moussa Ndoye ak lugam bu bees bi nga xam ne moom la indi maanaam beneen wat bu bees waaye tigoo xaritu yaayam itam daal li leer ba leer jóge na fa nga xam ne moo di tefes gi dem école de booy ñaar waaye wulleeg liiru jàmm ñoom ñaari doomi nday bër ki dem ci drapeau Saliou xulle ba daal dajewaat nañu mu mel ni ki kon ginnaaw dóorante ba ca gàm bi werante ba yaa daan ak maa maa yóbbu drapeau ba ak yóbbu woo ko mu mel ni nag xulle ca bésam ba tax na ñaari mbër yi daje daal di gisantewaat waaye li leer ba leer tey moom mooy le 30 décembre tey nag am na koo xam ne nii daal tey anniversaire ñu koy wax Astou Fall wala sopp dëkk ca Faas moom nag mooy anniversaire tey ñu koy wax happy birthday to you waaye Modou loo itam bërki démb day da doon anniversaire moom it happy birthday to you ca anniversaire ba bés bu dellu si moo neex waaye tontoo jaw DCA léewtoo itam da doon anniversaire bërki démb jaw taalibe seex yow itam happy birthday to you du mën a ñàkk bés bu dellu si moo neex loolu la ñu wax yàlla nañ ko yàgg a feete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 maa leen di nuyu mais yow moom mooy loolu kaa mais nag wàññil suukar wàññil boisson bi da nga bëgg boisson trop ndey kumba boisson bu bëri baaxul di naan rek yooyu wóorul <laughs> Babacar ñëw nag si jàngato arène bi ñu commencé ko sunu laam sunu laam moom dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Lac de Guiers le puncheur du Waalo moom nag nee na Eumeu Sène euh, da ko comme que bëre woon nañu xëy na nag dafa dégg xëy na combat Bombardier ak Eumeu Sène léegi mu taxaw tax mu génn tamit di wane boppam wax na tamit si combat Sa Thiès ak Yékini Junior nee na combat bu neex lay doon su fekkee combat boobu taxaw na nee nag moom su déggee naan moom dafa ragal Tapha Tine daf koy jaaxal ndax moom ragalu Tapha Tine Babacar ah waaw moom daal loolu la xëy wax tey waaye li am solo daal mooy ah moom yób mooy yëgtu nag yëg lu boog di moins ku bokk ci mbir moom toog dégg ñu naan fee léegi mu taxaw léegi mu taxaw te yow kee nga ne yoral na la bor ah kon ëmma laag ne na yoral nga ko bor bor nag des koy fay xaw ma ndax bis bu ñu bëree dina ko fayee ko wala déet parce que lu bëri nañ ñaari yoon bu njëkk bu ñu niil deuxième fois bi ëmma daan ko kon xam naa ne daal li mu wax am na yoral na ko bor fay ga nag ak nam ko fayee loola jëre lijjanti quant à ragal gi nag mu ragal tafaatin ah loolu lag da guerre de war ragal tafaatin laa foog waaw tafaatin moom yaakaar naa kasu bëri woon nañu mu daan ko kon defe naa ne loolu suñu papa Gaston bi nga ko tëggoon kalaafa ah 2007 yaakaar naa kon du ko muy war a ragal laa foog yaa ngi dégg leneen li ci des mooy diggante Sa Thiès ak Yékini Junior itam moom yàgg na wax ne loolu làmb la moom yàgg na ko wax ah nee na combat la et puis combat la Sa Thiès Yékini Junior actuellement bokk na ci combat yi nit yi amateurs yi gën a soxla parce que euh, dafa am loo xam ne nii làmb da koy laaj te bi làmb da koo laaj Sa Thiès Yékini wala sa wala Sa Thiès Garga Sa Thiès ñaar ñooñu koo ko ci jox rek pour man di nga bëggal euh, amateuru làmb yi. Euh, journal bi tamit ñëw na ci combat bi nga xam ne mooy combat royal bi xam ne Luc Nicolas moom la tëgg diggante Modou Lo ak Ama Baldé pour le 26 nee ñu nag ñi nekk ci làmb ji askanu làmb daal am nañu yaakaar ne malgré ki nga xam ne Luc Nicolas mi ngi nañ ko yoon mi ngi ci loxo yoon am nañu yaakaar daal combat bi dina dina taxaw ku ci mel ni commandant commandant Thioune nee na combat boobu Modou Lo Ama Baldé dina am Max Margan tamit nee na jàpp jàpp tamit euh, euh, Luc Nicolas teewul làmb ji tamit mën na am. waa Père Max jàpp na ne jàpp gi sax moom xam naa ne lu metti la ci làmba waaye terewul mën na am comment naa cuun moom ci Luc Nicolas yéen ko la bokk moom dafa jàpp ne combat bi dina am pour le 26 juillet ñun ñëpp tamit loolu la ñaana ah, parce kàddu gi benn la te yaakaar naa képp ku bokk ci làmb rek wala sax ngay sénégalais yaa ngi ñaanal Luc Nicolas parce li koy prouver mooy kani wala nga bind ci moom dara wala nangam ni commentaire yi nga gis nit ñi di commentaire moo lay wan ne kon li ko arrivé nii kenn yéene wu ko ko kon ñu ñu ngi ñaanaat daal comme ni ñuy wax rek ñun tamit ay sénégalais lañu am nañ droit ñaan yàlla sax moom mu ñu sàkk yaa ngi dégg moom dafa nangu ñu koy tooñ di ko jéglu te bañ a demaat ci tooñ ga mais tamit dafa ñoo sant ñu di ko ñaan mu di ñu may ñu di ko sant mu di ñu dolli kon tamit defe naa ñi nga xam ne ñoom ñoo leen dénk sunum réew am nañ droit ñaan leen ci affaire Luc Nicolaï bi te chaque jour dañ ciy wax ah Luc dañuy ñaan yàlla le 26 juillet bi mu jàpp combat wala bi ñu jàpp combat bi yàlla na fekk ku ci biti ba mu mën a organiser làmbam Amin Babacar suñu jógee na suñu laam dañuy dem fi nga xam ne mooy observateur observateur dafa ñëw si combat euh, bi nga xam ne mi ngi bëgg dox si diggante Bombardier ak Eumeu Sène neeñ daal mi ngi si jaww ji xam naa nag léegi mu wàcc si suuf si maanaam luy xeeñ la ah waaw daa mel ni daal parce que am naa ci ak benn max père daal benn waxtaan boo xam ne démb am na dañ ko seetaan ci Leewtoo TV waaw dafa mel ni daal combat boobu itam comme li nit ñi wax rek xam moom dañ naan kon comme noonu ko lob su waxee mu ngi xeeñ tey boo waxee am na ñoom dañ naan la loolu du combat am ñoom ne ne la combat la parce que lamb day taxaw ñu mais combat revanche la euh, xam nga dóor fayu la ku la dóor bëgg nga koo dab fayu te Eumeu Sène dafa dóor Bombardier maanaam koo daan nangu couronne bi kon tey bomb li ne ci xel mi mooy fayu kon defe naa comme noonu ko lob su waxee bu xeeñee itam yàlla na nekk su baxee ba ñu yàq ko nekk lu neex rek mais làmb la daal par rapport ak euh, xëy na itam du terewul mën na si naa gisoon ne ñoo it mën na ñoo may xale yi sens mais terewul mën na ñu bëri seen combat revanche bu amee ku ko bëgg Babacar nag suñu jógee si observateur dañu dem fee nga xam ne mooy Leewtoo TV Leewtoo TV nag weekend bi di sonn trop en en lutte bëree bëree bëree dóor nee ñu euh, samedi drapeau sa xarit Saliou Khoulé moo ki nga xam ne mooy Boylo moo ko jël si kaw junne. waaw junni daal kër Boylo fexe na ba manqué manqué junni ba def ko 4500 foofu lañu mujjee waaye loo ci mën a dégg nag mention spéciale à Saliou Khoulé waaw parce que olof a ko wax. ku la yëkkal xal nday kumba ma yëkkal ko euh, gang ndax ñoo yemi gàjjoon waaw yaa ngi dégg moo ngi toog si rajo bi tout le temps di ma bëggee yaa ngi dégg di ma ndamoo di ma yëkkati di ma dolli xam nga te loolu nit ku baax xol moo koy def kon daal yàlla na sa jàmm yàgg di ko ñaanal bépp doomu aadama drapeau nag Bamba Faye moo ko tëggoon samedi mais làmb ja foo ko takk ci metti waaye yegg na fa ñaari mbër yi dañoo xeex a xeex xeex ba ah xam ngay ginaar bu ñu xeexee ba sonn ba ku ne mënatul avertissement lañ mujjee. booy loo gàddu drapeau ba junni dem ak moom it muñ ma ne ko muñal loolu. 4500 waaw dem ak 4500 yaa ngi de kon ñuy félicité booy loo di encouragé junni mais di wax it Saliou Khoule jërëjëf di nuyu ay séeram yëpp parce que tey ah gis naa niñ ma adopté sur le coup ginnaaw bëgg-bëgg bu seen rakk am ci man may nuyu famille boobu yëpp ñu ngi asale maa ngi leen di ziar ñu ngi lay ay nday xulleeg toujours képp ku nekk foofu daal maa beneen drapeau ba nag tamit nekkoon grand combat ba tey ba tey parce boobu ma doon spécial bi boobu ki ko jël mooy góor gi étudiant ci kaw booy balde mu nekkoon combat bu metti tamit mu mel ni ñoom ñaar dañu newoon ci ay série de défaite kenn bëgguloon a daan moo tax combat ba metti mais nag góor gi étudiant mu mujj am ndam li kon ñu koy féliciter di encourager Boy Baldé. yaa ngi wax combat samedi métti na métti mi combat dimanche tamit métti na parce que si diggante euh, Alioune Seye junior ak Tapha Mbeur jox nañu victoire ki nga xam ni mooy Alioune Seye junior mais Tapha daal d'accord loolu mu ngi contesté victoire bi dimanche si gala bi nga xam ne Assane Ndiaye moo ko tëggoon fees stade Iba Mar Diop. waaw démb moom li ma la wax sànq rek noonu na la Assane Ndiaye dem toj na Iba Mar Diop sa bën sañ ba réer démb moom loo ci mën a dégg yëngu na jax na. waaw ko loo foo xalaat rek mboola ma bëri nañ mu mel ni kan tamit amateur yi saa yu tëggee làmb ju neex rek ñëpp ay génnandoo rawatina nag bésu dimanche Alioune Seye Junior Tapha Mbeur ñoom it ku ci ne bi ngay mujj bëre Alioune Seye Junior mbay guggee ko mujj daan Tapha Mbeur Mame Balla bu mag bi bi ñuy ñëw kon kenn ku ci nekk bëggoon defet yaa ngi dégg mais nag comme lu may wax chaque jour rek làmb moom reenu ñàmbile kenn xamul fan lay dammee boo xoolee ci biir bëre bi nag coow am na ci parce que li tax mooy action ba ñu njëkk a def xeex jàppante ba action am ci wër ndombok yépp am fa yaa ngi dégg Alioune Sèye Junior foofu rëcc na fa mais bi mu rëccee am na ku dawee ca biti ñëw dugg ci biir géew bi yaa dégg mais foofa coow dafa am parce que Aliou Tapha lay contesté daa jàpp ne foofa dafa am 4 appuis la fa Alioune Sèye Junior def mais arbitre ba moom jàppul bi ñu jógee bi kii daw dugg ci géew dootul bokk combat bi dañ koy téye ñu ñu wootee waat génne kooku réglé waat géew bi indiwaat suuf la ñu bëree mais nag bi ñu suuf la waatee bëree nag jàppante ba ñu njëkk def dafa metti boo leen xoolee ñoom ñaar physiquement dafa mel ni Tapha Mbeur ah da ngay xam ne physiquement nag mu ngi souffrir yaa ngi dégg parce que xam nga boo par rapport bi ko Alioune parce que boo xoolee action bi Alioune Sèye Junior wëri na tànkam ñaari yoon yu ñaari yoon yu njëkk yépp buy dem. da koy mën a moytu saa bu ñëwee dina ko mën a góor du jot tànkam mais troisième fois bi bi mu koy jël si waat dafa mel dafa yomb ci moom bu mu jëlee tànk ba nag ca la ko téye yaa ngi dégg def rotation dégg ko maanaam daan ko muy jël bu leer a leer mu mel ni kon damay wax ne mbër mi ñuy yor licence am di bëre bu ñu ko jàppee mag waaw wala ñoom ñu jàpp ne ñi ñu leen di dañuy jël koo xam ne mag la ñu ne nga ne nga ne mag la yow ngay xale ah boo ñëwee war nga am beneen taxawaay bu bokkul ak yenn taxawaay yi parce que dafa mbëri li mu bëree man pour man des dafa désordonné li mu xeexit même chose Alioune Seye Junior bërekat la mbër yooyu saaru mbër ay Alioune Seye Junior ay Tafa Gueye am na consort mbër yu mel noonu ñooñu mën nga leen sut ëpp leen gën leen a féete ndaw mais wallaay doo leen ëpp xelum bëre te à chaque instant am na bu ñu ko amee ci yow ndey kumba euh, balaa nga caa génn waa ngay dégg de kon nag di ko féliciter parce que moo yóbbu drapeau bi moo daan jël bu leer nañ ci li ñu gis la ca des nag Tafa mbër la mook managem ñuy nuyu à Cissé ak euh, la ko yoon may xam na ko loolu ñun du suñu domaine domaine am la yaa ngi dégg mais li am solo daal mooy ki yóbbu drapeau bi ci géew bi moom la ñuy félicité di encouragé Tapha Mbeur di wax ne Tapha ak euh, même tey bu dugaloon recours sax même bu gagné recours ba sax pour man mbir mi war dootul neex ci moom parce que li am am ñu bëri xalaatoon nañ ne warul egg ak Alioune Sèye Junior foofu loolu moo tax mais di leen wax ne daal ñoom xale yi nañu gën a farataal jàng bëre kaala nday ku ma fal ci ndigg lay njëkk kaala du gaaw a dem ci bopp de da nga koy teg ci ndigg yaa ngi dégg boo tolloo ci bëre da ngay jàng bëre mais ah, des fois da ngay gis ci ñoom ñoo xam ne nii xale yi dañuy teel a def seen bopp ay star trop nday kumba yooyu day xaw a diis. loolu am na solo Babacar jeexale nag si Leewtoo point net Leewtoo point net di ñu xamal ni ki nga xam ni euh, Manga 2 ak président Alioune Sarr dina leen décorer fee ministre Matar Ba dina leen décorer tey si quinze h fee si Maginlam ordre national de Lyon Babacar. waaw loolu de duñ def lu dul rafetlu ko rek ndax yaakaar naa Manga moom c'est moom mooy roi des arènes. waaw reconnu par le CNC kon tey bu ñu doxee ak taxawaayam mu retourné retourné waat nekkaat promoteur di fournir di di làmb ci dóor di ko tëgg ci simple kon defe naa moom delloo na mbaatu si bi reconnaître ko na ko ñu koy ñaanal yàlla loolu jik ko te muy yàgg fi moom manga parce que taxawaayam tam am na solo ndax ànd nañu ak moom dem ci ancien gulwaar yi dégg nañ li wax ci moom waaw te nag am na loo xam ne olof Ndiaye nee na li ñëpp wax nag day day doon dëgg wala mu nuru ko Alioune Sarr kazalika naka noonu parce que ci li ñu xam mooy la ñëw si làmb jiite ko booba la làmb am régal yi mu am ba tey yaakaar naa mbir yu baree bëri loolu bokk na ci li tax seen carrière ñu réussir ko biñ bàyyee làmb sax financièrement ak ci seen dund normal loolu tamit ñu ko ci moom it defe naa mérito na loolu waaw donte que nag mbir moo mën a yore moom réussite 100 pour cent ba wala parfaite ba du yomb waaye mu ngi bay waaram daal. Babacar si dig daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay sama doom Mohamed Diouf di nuyu Asta ñu ne DG Brahma chéri Khadija Diallo ki nga xam ne mooy Assis euh, Assec chéri Khoudia Seck depuis Italie ki nga xam ne mooy Abdou Gueye Papa Sita euh, Baye Fallou Diamagan depuis États-Unis aussi maa ngi koy jox wàccu waayam di nuyu xam ne mooy Djibril Diop depuis euh, Guinée Bissau di ko nuyu aussi di samay doom Mame Diarra Penda Fallou ak ki nga xam ni mooy bébé Moussa di nuyu. Euh, Aïda ayda Aïda Diouf euh, nuyu aussi euh, Aïcha Faye madame Nia yaayu paate Babacar ah, nuyu nañ ñëpp ziar ñëpp ñu koy nuyuwaat Aïda Aïda juuf ak Aïcha Faye mais tamit di wax mention spéciale rek moom Modou Diouf Modou Diouf borom Petersen ndax li ngeen di gis Babacar sol ko fan yëpp moom la muy ji nag Lacoste tey fii moo fi génnaat lii moom la lii moom la. ak dàll yi waaw non dàll as la as VIP sop Colobane moom am dàll moom ku koy jaay ci réew mi moo ci number one doomu ndeyu wulli moom moo jaar fii moo jox dal yi wulli ne ko tegal moo ko si loxo Babacar. ma samba sama ma ko may. waaw sa chéri yàlla na fi yàgg te wér te yàlla na ñëw takka la waaw di nuyu as VIP Sope daal maa ngi lay nuyu moom Diouf Petersen maa ngi lay nuyu di nuyu jaaykati yëre yi ne Petersen yëpp wala képp ku ne Petersen mais di nuyu tamit ñi nga xam ne nii ñooy soppe yi ñu suivre rek ñoom Ousmane Diop ñoom euh, Ben Sama Dem libaas Lo xam nga ñoom Youssou Ndoye tuuti yaay Sarr Khadiros du ñu fàtte kenn suñu limee dañuy juum nuyu nañ ñëpp mais tamit di wax mention spéciale parce nag dama am ASC sama dëkk ak yaay ASC jàppoo dem dañ doon finalu coupe boo xam ne nii benn tournoi bu ñu doon football la depuis ci 3 mois yi génn ba yàlla def ñu gagné ko démb ma leen di féliciter sama xale yooyu dëkk ak yaay di nuyu ak yaay yëpp mais di wax tamit finalu euh, commune bi maanaam nawetaan suñu commune Ndondol le 31 la dara ñu tuddee ko parrainage bi maître Pape Sène muy nuyu ASC yi renaissance bu seeseen ak waa mbombo yi nga xam ñoo ko war a finaalu pour suba di ñaanal ñëpp jàmm daal waaw Fall non Fall mënuñu ko bañ a nuyu Fall yaaram maa ngi koy nuyu taalibe Baye Niass di nuyu Yagamar taalibe Cheikh Béthio Thioune di ñaanal ñëpp jàmm rek waaw di wax ne que Sénégal kenn du moom borom Pikine di ko ñaanal yàlla bi yàlla na ko ci yàlla may soxna ndax xam naa bi moom faat na ci moom pour soxna ba suba incha allah